Thank you. say dooma ngoog way juróom gaaja say yarbaata ngoog way sama ndey ñibbi wow wow wooy doyal nañ ci yéen bëgg jooy ngir yéen ñaari nit donc bëgg fee lëmbe way sama ndey ñibbi way ay ca leen ne doyal nañu si yéen fi ñëwati yéen na ngeen toog fu ngeen xam nag jëm leen doyal nañ e na muy fecce wuy xoola kaaw la muy ree dërëm gaajo ñaar dërëm a ngi way gana jeesi yéen a ngi ñibbi ma sama jongoma bi nag. non yow xoolal maa ngi nii nag maa ngi nii munoo tiim chaque jour naan sama jongama bi sama jongama bi sama jong fii ñi fii ñëpp la nu yor nag. Eh, man kaay ma wax la nag man damaa yor laadum laa yor de ma pël pël de. nga ne laadum laa yor ma yow may nu yow. laadum laa yor xool xale bi xool. ñii dañuy wax jongoma 4G. Eh. man <laughs> di nga ko rey ah? di nga ko rey na ma rey. Ah. li waay li waay kër bi naan naa rey. Eh. di nga ko rey de. naa ah, ma rey dama koy damay bañ mu xool kenn ci biti. ah moo tax moo tax nga jongama lii lépp. yii xola su may tëdd sax damay jongama. noonu la jigéen dafa war a mën booram. jigéen danga war a mën sa côté. dëgg la fi ngay téye sa jëkkër xoola teeku teeku nooy nooy. ba nga da nga koy yeew. yii tànku laal ba du dem kii daa lay sama kaani xeex. Ah, mayu ma ko dara dara laa ko mayu. sooda hmm? sooda hmm? gis nga loolu nga wax. <laughs> loolu nga wax. daanu na daanu na loolu nga wax daanu na. maa ci tef lii. <laughs> xoolal boo pare natt boobu nga doon wax. Hmm. ak kii yooyu nga monte de léegi ko yow xalaat rek jëli nga ko man lii tax ma bëgg la yow ba àjjana man ak yow dem lakraaf la du dem lakraaf lakraaf mooy diggante sawar ak àjjana maa ak yow dem <laughs> loolu neex na lem nga nag tey na suukar ci wàññi aleykum salaam na ngeen def yéen sa jàmm yéen a toog di yow ya la ngi dem maa ngi ñëwaat lu xew sama mak. sama xaalis laa soxla ngeen génne da ngeen a dof kanosu yi ñëw nañ na xaalis bi génn déet déet buy ma soxna si waa déglu déet lu coow. yow amul may wax ak sa kanam ne ñàmbi suukar loo ma yàqul ba mu ñëwee da koo fàtte sama xaalis na génn. yow gisal da laaj sa xaalis fii sa morom nekku fi. ay kilifa fi toog na ko laaj sa xaalis ngay laaj laaj ko ak yar ak teggin ni fay la ko leen ma toon kilifa kon tey si ma fay sama xaalis ma dem ñibbi. waaw kan ndax ay kilifa ngeen man kilifa laa bàyyi ci kër ga sama xaalis laa soxla wax ji jarul muy bëri jigéen xam nga man boobu léegi waxuloo ak man waxuma ak yow xam nga waxoo ak man déglu fi mu wax la jëriñ salaamaaleykum lu àndul ak du dox laaj ko kan moo ko yoreel. mais ki kan moo ko yoreel xaalis bi. waaw kay Mandumbe moo ko yoreel ak Mandumbe ñoom laa soxla. voilà Mandumbe sama xaalis. Mandumbe xaaral léegi mu leer. ñànku ak Mandumbe ana ñànku kaay leen ngeen yaa ngi nii yëggali suñu ataaya yow nan nekk ci leneen yow. ñun duñu peleñaa. <laughs> ñun ñoo peleñaa ñun ñoo yor. wuyu Jason waaw nangam. ça va fii da ngaa xëy si tey. yow ak non nee na yow la. ñànku la. Eh, eh, eh. ay ñànku la waaw. bu ma fondoo la wax ana xaalisam ah, la ah, la oh, oh, ku baax ku baax waa bàyyi. ba bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi. ñànku la ñànku yow de xam nga ne lii ngay def ci tooñ la bokk buñ la yóbboon ci yoon dañ lay tëj. yow laaj sa xaalis waaye waroo taxaw mu ñëw de nga di ko dóor. yéen a ngi sama rakk bu su bu ngoon kenn du fay xaalisam. Ah. bu baax déggoo li ma la wax ñun duñ bay golo baabu bay golo du dundee. waaye fii fii baabu new fekk golo dama ne la. yow ku la xool xam ne baabu nga. waaw yow xoola bu ah. ngay bu mag bi. Eh, eh. nga ne lan. nga ne. dama ne la ñu ci xaalis dama la. coono coono ba si laaj amatul luwaa nag. fekk kilifa ci biir këram nga ne danga koy dóor sooda sooda kaw sooda an ko woni ma heelan kaw so eh eh ada lu taala nak defal nak defal nak may may may may ma tuur sa waay ñun ñun waxaale wuñu ak borom yow nopp kaw kaw abal ma 15 000 yooyu yan kaalis 15 desu ceeb la laa ko waroon waaw aal ma rek aal ma rek dégg doo aal ma aal na bar na bar waaw léegi doo def nii tuuti rek. non non lay taxaw bar defal ma bar. waaw bëgg ma man de peleñaa bi loolu mooy bal perdu. man sama yoon nekku ci bal perdu dal bi man sama yoon nekkul si bal perdu dal a def leen ndànk yéen ma génne xaalis bi doo génne xaalis mu gaaw. sa yow loo may jaay. Eh, eh, eh, yow eh kii bët bi day metti da. loolu la xamul loolu la xamul waaw rek. ki nu yow. dërëm si ñaar mi si ñam ñam la xam naa. lépp ci yam na xaalis bi jox rek ndax ñuy génn jox jox ko rek. ko. aal ma 15000 rek. 10000 ma jox ko. aal ma 15000. non sa jarbaat yi nag man xawma lii lan la quoi parce que tamit dañuy def peleñaa man ma ñëw peleñaa bii bal perdu bi dal pour lan la non. ah bal nga gën a oh tegal nii. sama yoon nekkul man lekk ko ma naanu ma. ñoo def mbindaan man maa fay mbindaan. ña la ñu jox. des na junni. eh vingt mille francs yow yow yow li nga seet. eh na man laa wax ah grand teel teel man mat naa wax waaye def ko si sabilaay non dimbali ma rek dëgg la nga kii kii xale la xool seen kër gi mu toll sooda alma cinq rax na ba sonn xale ba kii jëlaat na junni cinq dimbali ma rek alma cinq na junni ah, sooda bi objectif oh, ah. ah! Elton dekki na nag dof yi jël mbindaan man ma fay mbindaan ñoom ñoo jël mbindaan booy demal léegi man maa fay mbindaan. dëkk bi de amatul yow jar na la xool xool xool xool xool kooku aju yi. Eh, sama junni soo paree na ko lijjanti fay ma ko dégg kii nag ay ñetti junneem sama yoon nekku te eh, ah, xaw ma waroon xaw ma naan benn bële bu naan xaw ma naan. yow xoolal xoolal bu xoolal yéen bu leen kër gi li muy riir riir lépp yéen ñaar kese la. sama gisoon ko ma gisoon ko faje monu kala moy eh. yow yow nga bay bobu dem tapet bi nga nan moy gisoon faj monu ñaak ñaak lan tudduma ñaak ñaaku la tudu ñaaku lan mo tax ngeen sacrifice lan mo tax ngeen dem ma sacrifice fala jaal te gis nga lañ doon wax yep mi ngi fi di ñu dégg demul fenn day dof dof lo rek sel 20000 yoyu ngeen jëlul xalé bu jigen bi waaw ngeen fay ko xaliss mu ñew fi dafa and ak bombardier numéro 2 waaw bombardier numéro 2 dugg ci kër bi mu hol mu ndumbe tuuti mu rey ko mu ne ñun ñoo koy jox xaalis man yor bu ma lu dul benn wey. ba joxe leen ko. waaye fay ma waay déggal ma sacrifice nga naan ma lan. ma jokkoo man kii yow man jël ma mbindaan. yéen a jël mbindaan soo bu ko fu kenn ñëwee woole ma. loolu mooy sa xalaat. waaw bu leen bu leen gaaw a joxe woole ma. loolu rek mooy sa wax yow. te yow kii nii nga koy bàyyee mu dem te doo ko jóg dóor ko ba mu tëdd. kii ah. topp bari doole loo ko mën a dóore kii nga xam ne doole kese la. topp bari doole gis nga yéen ñii yéen a tax ñu rakkaaju ñii yéen a tax ñu am lu ma lay laaj hmm. man ak yow duñu miir kër bi ngeen dem appartement bee ma naka appartement bii man ak yow mun suñu nekk normal si kër bii dërëm